واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسال الله جل وعلا ان يلهمني الرشد والسداد والتوفيق في الامر كله اعوذ بالله من فتنه القول ومن فتنه العمل mbokk yi soppe yi ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di wax ne mboolem cant yi ñel na ko moom yàlla subhaanahu wa taala di seede ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa taala di seede ne yàlla subhaanahu wa taala moo yónni yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk jaamu yàlla subhaanahu wa di ab yonentam di ndawam ñoo koy ñaanal yàlla subhaanahu wa mu jàmmal ko te yàgg sotti ci moom waamee xéewal ak barkeem moom ak njabootam sallallahu alayhi ak saxaaba yi ko toppoon yan woon leerub lislaam yal na yàlla julli te sëlmal ci ñoom te jàmmal leen lu bari ak képp ku teg sa tànk fa ñu tegoon seen tànk ba keroo bi su penc ñi nga amaat kontante di dellusi di ànd ak ci jataay yi nga xamante ne ni am nañ ko ci koor gi di leeral ak a sharaa lii buntub koor ci téere bi di almulaxas الفقهي العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان يلا نكو يلا سبحانه وتعالى سام متوتكو نيكون بليغي تي بونتو بنجك بي دي بونتو ورغي وور ويرو كور وار اك وقتوم واي سونو بيندو تاي بي موي دي يغالي بونتو بيغا خامن سومبور نانكو تي جتاي بي ويسو تا موي كي جوخاي ويرو كور وار اك كي فاي ويرو كور وار ak kiy tànn diggante joxe wala fay ñu tàmbali woon ko jataay bi weesu allahuma inni audu bika min ilmin la yanfa allahuma inni asaluka ilman nafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabala allahuma anfani bima allamtani wa allimni ma yanfauni wa zidni ilman rabbi zidni ilman wa fiqhan wa hikmatan wa tawfiqan wa sadadan wa hudan wa tuqan allahuma faqihni fi ddin kon ñu ñëw commencé suñu bindu tey bi bind bi cheikh bi waxe ne walxitaabu bi iyaabi siyaam يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائد والنفساء والمغمى عليه فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم borom téere bi mu ñëw tey ci bind bi di wax ne ndigal li nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wax faman shahida minkum shahra falyasum cheikh bi mu ne ndigal lii nga xamante ne ni moom moo jub moom la yàlla subhana taala yëkkati ngir warlu ko woor weeru koor ndigal loolu day làmboo al muqiim la te mooy koo xam ne ku tukkiwul la wal musaafir ak ki tukki wa saxiix te mooy ki wér ki dara dalul wal marid ak ki wopp ki feebar wa taahira mooy ki laab ak ki laab wal xaaida mooy jigéen gu gis mbaaxam jigéen ju gis mbaaxam gis dereeti mbërëg wal nufasaa jigéen ñi nga xam dañoo wasin gis li nga xam ne mooy dereeti ku wasin wal muqma alayhi ak ñi tàggoog seen sago fa inna haulaai kullahum wal muqma alayhi mooy ko xam dafa xëm wala mu tàggoog sagoom nee fa inna haulaai kullahum yajibu alayhim sawm fi dimami ñooñu ñëpp dafa war ci seen aq dafa leen a war ñu woor li nga xam ne moom mooy woor li nga xam ne moom mooy weeru koor dafa leen a war gàll ci gàll ci seenu loos ñu war kaa woor waaye bi xaytu innahum yuxaatabuuna bi sawm yàlla subhaanahu wa taala dafa leen digal yàlla subhaanahu wa taala ndigal yàlla subhaanahu wa taala wax ñu woor weeru koor ndugal digal loolu ñoom ñëpp ñoo ci dugg dañ kaa war a fas ci seen xol ne lii di woor weeru koor lu war la ci ñoom lu gàllu ci seen loos la cheikh bi mu ne wala azmu ala fi'lihi dafa war ci ñoom ñu dogg tamit taxawee ko daal koy def li nga xam ne moom mooy weer koor waaye ñooñu ñu lim ñëpp daf ci am ñoo xamante ni imma adaan wa imma qadaan dafa am ñoo xam dañ koy woor di joxe moo xam joxe ko ci weer wa te mooy ko ci waxtu wa te mooy adaa mooy wa imma qadaan imma ñooñu am ñu ci am ngànt ñoo xamante ne dañ koy fay ci yeneen bis kon ndigal li yàlla subhaanahu wa taala ci war goo xamante ne nii weeru koor war na ko ndigaloolu day ëmb koo xam ne ku tukki ku tukkiwul ku ku laab ak ku laabul moo xam jigéen gis mbaaxam wala jigéen joo xamante ne nii gis na li nga xam ne moom mooy deretu ku wasin ak xam moo nee na ñooñu ñëpp dafa war ci ñoom wóor weeru koor day gàllu ci seen loos waaye ndigal loolu wax yàlla subhaanahu wa taala ñoom ñëpp la làmboo dañ ko war a fas ne lu war la ci ñoom lu gàllu ci seeni loos waaye dañoo war a dogu def ko def googu nag ñaar la am na ci ñoo xam dañ koy def ci waxtu wa te wooy mooy ñi nga xamante ne nii tukkiwuñ ak ñi nga xamantene ni nii feebaruñ ñu wér lañ am kàttan waaye ñi nga xamantene ni dañoo laab jigéen ñi nga xam dañoo laab gisuñu seen baax gisuñu dereeti yi wasin dereet ku wasin waaye am na ñoo xamantene ni dinañ ko def waaye dañ koy fay mooy bu weeru koor yu jeexee ñu fay bés yi nga xamantene ni dog nañ ko ca koor ga cheikh mu ne fa minhum man yuxaatabu bi sawm fi nafsi shahri adaan cheikh mu ne am na ci ñoo xamantene ndigal bi daf leen a sant ñu joxe weeru koor woor ko ci weer wax joxe ko ci we biir weeru koor gi te nee na loolu mooy ñi nga xamante ne ñoo wér ak ñi nga xamante ne ni tukki wuñ waaye ñi nga xamante ne ni gisuñu mbaax jigéen ñi nga xam ne gisuñu seen mbaax jigéen ñi nga xamante ne ni wasinuñu amuñu dereetik wasin cheikh mu ne wa minhum man yuxaatabu bilqadaai faqat am na ci ñoo xamante ne ni sant nañ leen ñu woor waaye am nañ ay ngànt yu leen tere ñu joxe ko ci li nga xam ne moom mooy weer wi ñooñu dañ dañuy fay kase te mooy jigéen goo xamante ne nii gis na mbaaxam ci weeru koor wala jigéen joo xamante ne nii wasin na ci weeru koor walla lu weeru koor du mën a woor wala ku wopp ku feebar koo xamante ne feebar boo xamante ne nii lott na ba mënul joxe weeru koor ci weer wi ata feebar boobu noonu dina ca wére ba mën a fay kooku bu wéree dafa war a fay ndaxte feebar ñaari feebar la koo xamante ne nii feebar na waaye feebaram am na njort ne feebar boobu dina ca wéere kooku bu wéree dafa war a fay waaye koo xamante ne nii feebar na waaye xam na ne feebar bi mu feebar du feebar buy wér kooku bu boobaa kooku day natt li nga xamante ne moom mooy mudd di ko génne te mooy bis mu nekk mu génn li nga xamante ne nii moom mooy kilo ak xaaju kilo di ko leel ñi nga xam ne ñooy miskiin yi ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk cheikh bi mu ne am na ci ñoo xam ne dañ leen di tànnloo kon ñetti catégorie la am na ñoo xam ne dañ leen di tànnloo ci ñaari mbiri mooy ñu dog wala ñu woor te cheikh bi nee na loolu mooy ku tukki kon ku tukki am na ak woyafal bu ko neexee mu woor bu ko neexee mu bañ a dog wal maridu alladi yumkinuhu sawm bi mashaqatin min gayri xawfi attalaf ak ko xam ne feebar na feebar boo xamante ne du feebar bu koy lottloo mu woor waaye feebar la boo xamante ni nii du feebar bu diis feebar bu woyof la feebar boo xamante ne ni ragalul bu wooree mu gaañ ko wala mu alak ko mën naa woor waaye koor gi day ànd ak coona feebar na feebar boo xamante ne nii manees na mën na woor waaye day ànd ak coona waaye ragalul li nga xamante ne moom mooy feebar bi faagaagal ko kooku bu fekkee ragalul feebar bi faagaagal ko bu wooree koor gi du yokk feebar ba wala koor gi du yéexe li nga xamante mooy ak wéram walla dem na ci médecin boo xamante ne ni médecin la bu xarañ bu am xam-xam médecin bi conseillé ko pour mu bañ a woor bu boobaa kooku dañ naan ko boo wooree da ngay loru day yokk sa feebar wala day yeexe sa wér bu boobaa li gën ci àqam kooku moom mooy mu dog mu fay bés yi nga xamante ne am na ci koor ga bis bu amee ak tan kon kooku ci àqam li ngeen ci àqam moom mooy mooy mu dog naam <clears throat> cheikh bi ñëw ci benn masala te mooy ñi nga xam ne am nañ ngànt ci koor moo xam jigéen ku gis mbaaxam la ci koor wala jigéen ku gis dereti wasin wasi ko wasin wala xale boo xamante ne nii amul nag ràññe waaye matalagul ay fan moo desoon mu mat pour mën a woor wala kutukki ñooñu loolu nga xam ne mooy ngant yooyu bus bu yëkkatikoo daal di teggeeku ci bëccëgu weeru koor ana leen moo leen war cheikh mu ne képp koo xamante ne ni dogoon nga wóoroo woon ci weeru koor wi ngir ngant nee na ngant loolu bis bu dañee ci bëccëgu weeru koor comme kutukki woon daal di ñibbisi ci bëccëgu weeru koor ku gis dereetu mbaaxam ku gis ku wasin gis dereeti wasin ñoom ñaar ñu daal di laab ci bëccëgu weeru koor ay fan des na koor gi ñu laab ako yéefar boo xamante ne ni tuub na ci bëccëgu weeru koor ak ku tàggoo woon a koo xamante ne xelam dikkaat na mu wér ci bëccëgu weeru koor ak koo xamante ne ni majeuragul woon xale boo xam ne majeuragul woon waaye ñu dem ba ci diggu koor gi ci bëccëgu weeru koor mu majeur cheikh bi nee na ñooñu ñépp li leen war ca digg ba bëccëg googu noonu mooy ñu jàpp ca bis boobu noonu jàpp bañ a lekk bañ a naan bañ a def lépp loo xam dañ koy tere ci koor la des ca bis ba ngir lan warmaal bis ba waaye masala bi dafa am li nga xamante ne moom mooy wuute cheikh bi li mu wax ni loolu moo nekk ci madhab alxanbali bu demee ci zaadul mustaqnix di nga ko ca fekk loolu mooy waxu xanaabila ci masala bi ni waaye cheikh ne uthaymin nee na nee na masala bi am na beneen gisin boo xamante ne nii gisin boobu moo ëpp doole boo demee ci téeram boobu di alcharx almumtix almujallad thalis safxa thalathamiya wa waxid wa arbain cheikh ibn uthaymin toxal na wax yi borom xamaam yi ni wax ci masala bi nii kon am na jeneen wax joo xamante ne nii cheikh ibn uthaymin na wax jooju moo gën a wér te mooy na ñooñu ñu lim ku ci sangant yëkkati ku ci bëccëgu weeru koor nee na li la war moom mooy fay waaye du la war nga jàpp bis boobu continuer bañ a lekk bañ naan waaye li la war rek mooy nga fay li nga xamante ne moom mooy bis boobu noonu Cheikh na Useymin tettale ne ndaxte kooku commencement bis bi dafa dog kon du ñëw ba ci digg bis bi di di ko jàpp di continuer te bis boobu noonu da koy fay waaye nee na li ko war moom mooy mu fay bis boobu nga xamante ne nii dab na ko ci digg bëccëg gi Cheikh na Useymin mu ne parce que jarul muy jàpp bis bi di ko continuer parce que lii ngi di bëccëg gi nekkatul loo xamante ne ni am na war ma ci moom ndaxte lekk na ci commencement bis ba loolu moom la Cheikh na Useymin wéral waaye loolu xale bi soog a majeur ñu dem ba koor gi am fukki fan ak juróom xale bi majeur wala ki nga xam ne dafa tuub bu boobaa ñoom du ñu fay ndaxte fan yi weesu nekkuñu woon koor nekkul woon lu gàllu ci seenu loos parce que kii yéefar la woon nekkul woon jullit pour charte bi nga xam ne moom mooy wéral ay jàmm yàlla am manqué woon na waaye xale bi tamit majeuragul woon kon ñi nga xam ne ñoom ñooy fay mooy ku jigéen ki gisoon mbaaxam wala ku jigéen ku gis dereeti ku wasin wala ku tukki woon ñooñu ñooy fay bis yi nga xamante ne nii raw na leen ca koor ga waaye xale bi soog a majeur ci diggu bëccëgu koor walla yéefar bu tuub ñooñu duñu fay bis yi nga xamante ne nii weesu na ndaxte nekkuñu woon muskallaf ca gàllul woon ci seen loosu lii du war a ku ci nekk amoon na loo xamante ne moo la teree woon a woor kee matagul woon kii ab yéefar la woon am na lu ko teree woon a woor kon kii di xale bu majeur ak kii di yéefar bu tuub ci bëccëgu weeru koor ñoom dañ leen di sant ñu continuer bëccëg gi waaye duñu fay ñu continuer bëccëg gi woor fan yi ci weeru koor waaye duñu fay la weesu waaye kii di borom mbërëg ku gis mbaaxam ak ku gis dereeti ku wasin ak ku feebar ak ku tukki ñooñu dañuy fay waaye du ñu jàpp bis boobu noonu dañuy continuer lekk du ñu jàpp bis boobu noonu la des ca bëccëg ga euh, ñi wax wax jooju noonu ñu tettaloo ci waxu Abdullah ibn Mas'ud ne man akala awwala nahaar fal yakul axira nahaar ku lekk commencement bés bi na nga àggale lekk mujjantelu bés bi kon ngir leeral masala bi nii moom mooy képp koo xamante ne nii sa ngant yëkkatiku na ci bëccëgu weeru koor bu dee xale la buy soog a majeur ci bëccëgu weeru koor xale boobu noonu day jàpp bis boobu noonu du lekk du naan ngir warmaal bis bi ndaxte du fay ndaxte fan ya ak at ya weesu ca moom majeuragul woon naka noonu yéefar buy soog a tuub ci bëccëgu weeru ko day jàpp bis boobu noonu waaye du fay waaye kii di ko feebar kii di ko tukki kii di ko gis mbaaxam jigéen ju gis mbaaxam wala jigéen ju am ju amee direeti ku wasin ñooñu bu seen ngànt yëkkati ko li ci masala bi moom mooy mooy na ñoom bis boobu noonu duñ ko jàpp waaye dañuy fay bis boobu noonu ak bis ya weesu kon loolu moo wér ci li nga xamante ne moom mooy masala boobu noonu day dugg ci loolu ba léegi tamit koo xamante ne nii neelaw na te fanaanoowul li nga xamante ne moom mooy yéene comme koo xamante ni teel naa tëdd xamul ne ci te ca te loolu ci début koor gi mën naa dal ay nit koor gi soog a teru koo xamante ne nelaw na fanaanewul ak yéene xam ngeen ni fanaanoo yéene bokk na ci charte yi nga xamante ne nii mooy wérul koor ko xamne nelaw na wul yene koku bu yewo ñu ne ko koor gi duguna koku day jàpp bis bobu non bis bobu non da koy jàpp du lek du naan day ànd nok nit ñi wor waye day fay li nga xamantene ni mom moy bis bobu non kon lolu mom mo am ci masala bi ni cheikh bi mu ne wa kada ida qaamat albayina bi al shahri bi dukhul al shahri fi athna al nahar fa al muslimina yumsikuna baqiyat al yawm wa al yawm ba'da ramadan cheikh mu ne bu ñewé ba ci digg bëccëg xibaar bu wér ñëw ne koor gi ne weeru wi feeñ na te jullit ñi wóoruñu woon cheikh bi nee li war jullit ñëpp mooy ñu jàpp li nga xamante ne moom mooy bis boobu bañ a lekk bañ a naan daal di koy continuer woor bu koor gi jeexee ñu fay li nga xamante ne moom mooy bis boobu noonu kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom lañ bëggoon a leeral ci li des ci ñi nga xamante ne nii war na leen ñu joxe li nga xamante ne moom mooy woor ci waxtu wi ak ñi nga xamante ne nii war nañoo fay ak ki nga xamante ne day tànn bu ko neexee mu woor bu ko neexee mu fay kon dañuy yemandi foofu jataayu tey bi subhaanaka allahuma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk